أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أب قد جاء يعرفنا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 démb nag maa ngi ñëw di résumé lañ jàngoon bërki démb si biir wax ji maa ngi naan judd gi dafa dëppoo nag fukki fan ci weeru neesaan mais loolu dama juumoon nag loolu njumte la woon rek sama làmmiñ moo juum wax ko mais du loolu laa bëggoon wax ndax ñaar fukki fan la loolu lañ jàngoon waa faqal insrina loolu laa jàngaloon ba leer nañ kon su mu ñëwaatee na fukki fan loolu juum la rek waaw wax nañ démb nag si darsu bi ne yonent bi ñaari at lañ ko nàmpal bañ ko nàmpalee ci lañ ko doko ko ci comme niko yalla ya waxe waxee wal waalidaatu yurdi'na awladuhunna hawlan kamilen yalla ya ne way jur yi nañu doomi ñaar at waaye lool nak nekul lu war nampal ko ñaar at nekul lu war ndax bu lu ko tektele moy dafa xal ci kanam la liman arada ayuti an yutimma kum neex man na def lool waaye kum neeti man na bañal man na baña matal ñaari at deng lool loolu nañ ko dembu ak halima mbaamam ma la sa woon ba muy ñëw làpp gam làppoon kenn euh, euh, ba mu ñëw làpp gam làppoon goo xam ne kenn xamul nu euh, foo ko natt weesu na ko waaye ba muy dem nag moo jiitu loolu moom waxuñ ko woon démb dañ ko fàtte woon wax waaye ba ñu retour maanaam ba ñëwee bay tourné waat di ñibbi mbaamam moo jiitu ndax foo jamono boobu mu ngi am kattan macha allah am force bu baax a baax regg gannaaw bu mu ci tegi yoonte bi bay ñibbi noonu la demee woon comme nu ko Maodo waxee si xilaas ba naan ataanuha sabaqat ma zaka aadatuha mu ne mbaam mi Maodo ne mbaam mi ba ñuy dellu moom moo jiitu te loolu duutoon aadaam <laughs> parce que mbaam mi lu doon mooy des gannaaw moom moom mbaam yëpp ko daan jiitu yëpp moom moo daan des gannaaw mais keroog ba mu tegee yoon bi ba war a ñibbi nag moom moo jiitu loolu it jàngoon nañ ko démb ci darsu bi euh, encore tamit jàngoon nañ mu ne gannaaw. ba mu amee ñaari weer ñaari at laa bëggoo ak ñaari weer si lañ xaroon dënn bi am na ñu ne gannaaw woo amee quatre mooy si juróomeelu at ba kon nga déggee si ne euh, nu tudd sax maanaam li ma bëgg wax mooy xar dënn boobu duhut benn yoon lañ ko def ci dund yoonte bi maanaam ba mu amee ñaari at ak ñaari weer def nañ ko am nañ euh, encore tamit ba muy bañ koy yónni xaraat nañ dënn bi <coughs> yàlla xaraat na dënn bi foofu Ah, ebal na ay malaaka ñu defar ko ngir lan ngir préparer li nga xam ne moom la war a dékku ci ay wax yu su paree mu dékku ko ci dënn bu ah, set wicc maanaam xol bu sell xol bu amul benn nëx-nëx ndax bañ koy yónni defaat nañ loolu xaraat xol bu xar dani bi raxas ko nettoyé ko ba mu set wicc ngir wax yu bu mu war a dékku mu dékkoo ko ci xol bu sell boo mooy bu ñaareel bu ñetteel mooy ba mu rañaan ba muy rañaan tamit guddi rañaan gi li mu war a dajewaat ci ay macha allah ay munajaat diyaaleeg moom yàlla moom xol bu sell lañ war a del dajee ak moom si lañ malaaka yi tamit xalaat deni bu raxasaat ko mu baax génn lépp lu fi ne ba mu doog a dem rañaan yi boro boromam kon xar dënn bi mën na ñetti yoon am na ñu ko def sax lu ëpp loolu waaye loolu léegi loolu lañ jàngoon démb si dars bi tey nag ñu war a dalee wa jadduhu lil abi abdul muttalib ba'da zamanin mata min xayril kasib anhu ah waaw foofu la war a dalee mhm. euh, wa jadduhu lil abi abdul muttalib baada samanin mata min xayri kasi waa koy mu ngi ni nee na wa jadduhu maamam lil abi ci wàllu baayam abdul muttalib tama abdul muttalib baada samanin gannaaw juróom-ñetti at ci dund yonantu sallallahu alayhi wa maata la dee min xayri kasib ci luwul benn fen nee na maami yonantu bi sallallahu alayhi ci wàllu baayam maanaam ki jur baayam baayam moo doon abdullah moom jàlloon na ñuy wax ne deewoon na bañ ëmbee yonent bi léegi nag maam ji moom desoon na fi maam ji nag kañ la dee mu ngi moo ngi dee ba yonent sallallahu alayhi wasallam amee juróom-ñetti at yaayam mu ngi deewoon ba mu amee juróom-benn at jàngu nañ ko démb waaw loolu la ko ne di wax moo tax mu ne wajadduhu maamam lil abi ci wàllu baay la maamam ci wàllu baayam abdul abdul muttalib te mooy abdul muttalib ba'da zamanin juróom-ñetti at gannaaw juróom-ñetti at maata la dee min xayri kasib ci lu dul benn nar ndax gannaaw bi yaayam gaañu waxoon naa waxoon naa umu ayman ba yaayam gaañu fekke na moo ko andi si maamam maamu ko ne di ko yar ba mu nekkee moom nag si ba mu ab la maam ji dee maam ji nag ba muy dee daf ko dénkoon benn bàyyi xam bu ñu tuddee abu taalib abu taalib gannaaw bu maam ji dee moom moo ko yoroon di ko yar te maam ji abdul muttalib ci boppam moom moo ko dénkoon moom moo dénkoon ba mu waaj a dee la dénkaane woon la ko la ko la ko dénkoon kooku noonu di Abu Talib ndax la moo taxoon mu dénk ko Abu Talib si am na nag ko yaral na ko yoreel mooy Abu Talib maam ji dafa gisoon ne bëgg na ko bëgg goo xam ne maaraaja taal yi xër na xër xër na ci moom tamit xër goo xam ne gisut kenn kum xëree noonu ci moom waaw bëgg na yonent bi bëgg bu tar te xër na ci moom loolu taxoon maam ji ba muy dee mu bàyyee ko ne bàyyee ko Abu Talib encore tamit moomu moo loon Euh, fereeru baayam maanaam mooy ki nga xam ne moo bokk ak baay yonent bi nday ak baay moom Abu Taalib te bëggoon ko trop maam ji nag ba muy dem dénkaane dénkaane ko moom euh, kook di Abu Taalib léegi loolu la bëgg a jàngale fii nag léegi Abu Taalib nag jamono bi mu ko yoree gannaaw maam ji dee mu continuer di ko yar jamono boobu ba yonent bi demee ba am fukki at ak ñaar dafa am benn commerce bu mu dem saam léegi nag ànd ak gars yi ba muy dem nag dafa yóbbaale yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam daf ko yóbbaale woon loolu tamit bayt yi di ñëw encore moom la bëgg a jàngaleyaat boo yonti mu ngi am douze ans léegi nag ba muy yóbbaale ba mu demee yóbbaale ko dañ fa dajeeg benn labbe labbe bi nag gis ko xam ne kii yónnantu la am lu fa xewoon seen diggante ñoom ñaar digganteem ak labbe bi moom yonti bi sallallahu alayhi wa danañ ko nettali léegi incha allah xisa bi nu mu demee woon loolu tamit mu ngi koy jàngale fii nii dégg léegi loolu lay wax suma abu taalib suma abu taalib bi topp abu taalib al ammu dégg nga mooy bayti yi xaama jaar si mu leer suma abu taalibin al ammu kafal xidmatahu suma ila shaami raxal wa zaka baada misna achar wa kaana min amri bahira mastahar nee na suma abu taalib topp abu taalib nag gannaaw bu maamam dee kafala moo gàddu xidmatahu ak liggéeyam moom moo leen ko toppatoo gannaaw bi maamam deexee muy abdul mutalib abu talib la ko bàyyee moom moo ko topoto moko yar léegi nak lu wax léegi dafa andon ak mom dem sam, benn commerçant mom lay wax fi mu ne su top raxala topp na moom abu talib and ak yonent bi ila sami jim sam, lol kagn la mu wasaga banda amis ne azar mu ngi amé won ci gannaaw bu mu fukk ak ñaar ci ay at manam 12 ans ba yonent bi amé boba la andon ak dem sam, denga. ba mu demee saam wax naa léegi dajewoon nañ fa benn baxi benn benn euh, labbe labbe bu ñuy wax baxiira baxiira la tudd loolu lay wax mu ne wa nekkoon na xewoon na maa li nga xam ne istihara siiw na min amri baxiira ci mbiru baxiira mooy xissa boobu noonu ngay dégg ci diggante baxiira ak yonent bi xissa bu siiw boobu mu ne si tukki gii nii nii la xewee mooy tukki gi nga xam ne Abu Talib ànd na àndoon naa yonent bi dem saam si ba muy am douze ans xissa boobu noon noonu diggante moo baxiira fii la xewee woon comme rangwa bi waaw si tukki mi ni la xewé won wakana xewoon na maa li nga min amri bahira ci mbirum bahira mbirum bahira bi moy lan moy abu talib bam ande yunus sallallahu alayhi wasallam dem sam dafa dañaa dem ba fuñu wax busra ben dekk la ci dekk sam yi ñi dem ci marché busra ñëw sipi sen bagage fofu si ben ron garab labbi bi sen len fekk foofu soriwutoon na fu labbe bi nekk labbe bi afa gaay deg dégg si garab gi ba ñuy ñëw rek mu ngi leen seen mu gis yonte bi sallallahu alayhi wasallam benn ker mu ngi ko topp parce que yonte bi jamono bu doon dox daa am ker gu koy keral benn niiru moom buy dox ker da koy topp suy dox si naaj bi nii benn ker da koy topp labbe bi nag gis ker gi mu ngi topp yonte sallallahu alayhi wasallam yimut sa waaye gaay ñoo jiitu yonte bi si ker gaay ñoo ñëw toog yonte bi ñëw toog si cet ker gi ker gi jeng jëm si yonte bi labbe bi tamit gisaa loolu ah lolu jaaxal ko fekk labbe bi nak deug yalla ku jàngoon tire ndike la xamone na xamone xamoon mu jek jamono bi nan la wara mel mel sha allah jang na si ay melokanam yeb legi nak labbe bi sila profito defar ay ñam lam motax tax la bëgg gisé mu defar ay ñam pour inviter la ñom ñi ñew ñom wa Quraysh non ndax yonantu bu ñu gis seen biir tax ay ñam kenn si ñom sax dal dina ko yow Bahira yow lu xew tay parce que ñun yàgg nañoo romb fii chaque jour xam nga bu daaw ñu ànd ak yonti bi mu yàgg nañu romb fii chaque jour mosu ñaa wax dara tey lu xew ba nga ko ah waaw yéen euh, tey ñu kon defaral ay ñam dañuy dañuy oon na ko ah, waa dëgg la yéen ay gan ngeen rek ma war leen teral rek ma gis ne ay gan gan ngeen fi ma war leen teral loolu la mun nga waaw mun ko waaw après su defal ñam yi yónnee ci ñoom gaay woo leen ba leen gaay ñu ñëw wax yonti ne na xaar ci bagage <laughs> wax yonent bi sallallahu mu xaar leen foofu seen bagage yi ñoom ñu dem pour euh, sa ñam wa ñam wu leen waaji euh, préparé foofu noonu ba ñu eggee Bahira leen yéen kenn disut xool xool na leen yéen kenn disut <laughs> gaa ko non kenn disut kanaa daal benn xale de moo fa des jëriñ ma kii ba euh, moo fa des de ñi boobu ñu ngi si jublu yonent bi te ñoom xamuñ ne ñam yooyu waaye defarul yonent waa tax <laughs> ñoom ñu ñëw bàyyi ko fa <laughs> ñoom ñu bàyyi ko fa moom pour ñëw ñoom euh, récupérer ñam yi lekk ko te ñoom toxuñ sax maanaam yontu sallallahu alayhi wasallam bahira na leen dem leen andi ko ñu leen kooku moo des mu dem leen andiko ah benn waaye dem si ñoom andi fop yontu sallallahu alayhi wasallam bokk di di ñëw mm-hmm. ba koy di ñëw tim bahira gisaa ker gi di ko la ben ker di ko topp rek moom fu mu jëm ah ñu ñëw ñu defar lekk yi gaay bahira wax ab eh, bayam ji mooy abu talib mm-hmm. ne kii dama kaa soxloo ndax may man nga may ma gisee moom ñu waxtaan Abu Taalib nag waa garaaw ñu waxtaan fekk yonent la bëggoon gisee ñamu defar pour oolal noonu yëpp loolu la la bëggoon baleem ba mu leen woowee ñu ñëw ñu waxtaan mu koy laaj parce que jàngoon ne si seen tiire yi ñoom wax naa la ko sànq sifaay yonent bi war a ñëw mujj ak jamono nan lay demee léegi am na sifa yoo xam ne zahir la boo ko gisee nii mu feeñ da ngay xam am na yoo xam ne baatin la mënuloo koo moom rek moo ko mën a moom bay waaye enoo xale bi ñoom mu ngi koy xool di xool di ko xool rek maanaam so nu mu nga xoolee sax dafa yéeme di ko xool mbër yoo xam ne yooyu yëpp sifa yooyu la doon xoolaale léegi am na sifa yu des yoo xam ne moom mënu koo xam pour comme naka lay nelawee ak naka lay nangam yooyu noonu yowuntu moo ko mën a wax léegi ba mu ñëwee ba na wax Abu Taalib soxla xale bi ndax mën nañ gisee Abu Taalib ko mu ñëw am na sifa yu mu gis zahir yooyu moom leer na waaye am na yu des seet nga mu laaj ko mu ne ko asaluka bi xaqi laati wal uzza mu yonent bi ne ko maa ngi lay laaj ci xaqi laata ak uzza laata ak uzza ñaari xërëm la ñu nekkoon màkka ñoom moom la ñu daan gëñee léegi yonent na ko bu ma laaj ci xaqi laata ak uzza de man amul lenn lu ma bañ comme ni mu comme ni ma bañee laata ak uzza fekk Bahira moom gëmutoon laata ak uzza moom yàlla rek la doon jaama benn labbi la woon waaye booba mu ngi bëgg a xool nattuwaale yonent bi wa sel ngo ba te timi gis na na gaay mi mom lañu waté mo ñam and ak waa màkk yëpp laata constat la lañu wax mo ndi mu ne xam laaj laata constat bëgg na toile ba xam ndax bu fekk ab yonantu la yonantu mom luddul yalla du ci wax dara ay xërem yooyu mom du ko bëgg mm-hmm. bi nako bu ci mu ne kon ma lay laacc ci lu lay wax moy bahira lu lay wax moy laaji mu la bëgg laaj ni la bëgg nga tontu mo yépp mu ne ko waa baax na muy laaj bi di tontu nan ngeen bi tontu di laaj di laaj di ko laaj ay si ay mbirum lu bari yonent bi tontu léegi mu des benn mhm. mooy xaata xaatamu nubuwoo bi ki nga xam ne mooy mu jëg jamono mhm. mooy yonent mu jëg jamono dafa am xaatamu nubuwoo fii si mbaggam bi léegi mu des boobu mu ne ko mu laaj yonent bi na ko wuññil mu xool ko waa ji wuññi ko mu xool si la nag xam ne instant bi moom jeex nag ku mu doon wër kii la mhm. seet nga wu baax kii mooy mbir mi amatul benn sikk sàkk lépp lu nëbboon léegi leer na ah mu dem mu delluwaat ci baayam Abu Talib baa xam boobu na ko abu laaj ko na ko maa haazal xulaam minka bi sa lan la aw taal na ko la mun ne ko mukk kii du sa doom de kii mu ne am ah mu ko baayam dundut mu ne ko wax nga dëgg sama doom mbokk la man maay magi baayam mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko ana ba ana baayam baayam moom nu mu def mu ne ko baayam de mu ngi dee bañ ko ëmbee mu ne ko yaayam mu ne ko yaayam dee at yi si gannaaw yàggul dara mu ne ko wax nga dëgg mu nga ko nga kii mu ne ko ah wallaay mbir mu màgg mooy feeñ ci moom te gis nga man li ma xam bu ko bu ko yahud yi xamee dañ koy rey kii nii jël ko nga dem delloo ñu ko màkk nu gën a gaawee dafa bon yahud dafa xañaan mm-hmm. li ma xam ni ñoom buñ ko xamee dañ ko pexeel si lañ Abu Taalib dem léegi xisa boobu nag moom la waaye di jundi fii ne xisa bii ma la nettali fi mu xewee woon mu ngi xewee woon ci tukki moomu nga xam si tukki moomu Abu Taalib tukki woon yóbbaalam yonent bi si ba muy am douze ans si la amee woon dégg nga moo la woon wajjadduhu maamam lil abi ci wàllu baayam abdu déedéet su ma Abu Taalib maa ngi départé su ma Abu Taalib topp Abu Taalib alhammu kay baateex kafala moo gàddu xidmatu liggéeyalam dégg nga rek gannaaw bi fi maam ji jóge ko moom la ko bàyyi mu ko doon yar dégg nga su ma raxala topp laxas na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi moom Abu Taalib mm-hmm. laxas na ànd ak yonent bi ila saam yi jëm si saam wa zaaka loolu nag ba'da aamis na achar mu ngi nekkoon ba yonent sa alayhi wa sallam amee fukki at ak ñaar mm-hmm. mooy douze ans wa kaana xewoon na min amri bahira ci mbiru bahira maa li nga xam ne istahara siw na wala wakkaana kaana xewoon na nga def taq ak taxir wa kaana xewoon na maa li nga xam ne istahara siw na min amri bahira ci mbiru bahira xisa bahira boobu noonu ngay dégg ci diggante bahira ak yonent bi xisa bu siw boobu nee na ci tukki mii la xewee woon xam nga xisa boobu siw xaw naa siw tuuti de gars yi dañ koy faral dégg mu ne boo xamuloon kañ loon mu ngi nekkoon fii ba yonent bi amee douze ans tukki moom noonu Abu Taalib jëloon ko yóbboon ko fan saam hmm. si la xewee woon baax na fii lool kon na wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñu yem la ko fii macha allah darsu bi day xaw a gudd parce que xista bi mu làmboo moo guddal darsu bi mais ñetti béyti kese la wasalaamaaleykum wa rahmatulah ba beneen yoon incha allah.